Eh, yow ak eh, professeur Ngouda dama la gis ngay nga am benn tweet boo def sa diggante ak moom lan la. non du tweet ah c'était une émission euh, du 4 avril euh, ñu ne newoon di waxtaan euh, il m'a montré il montrait aux Sénégalais benn titre ak fonction wax ne amu ma delloo ko ko ni ko on t'appelle tout temps professeur alors que tu n'as pas soutenu ta thèse. man wax na ma ko sama sama plateau. donc du coup il va falloir nga dem. ba nekk amul agrégation non ba am doctorat amul doctorat c' pas l' agrégation l' bien après. nga doog a ñëw di wax ni ñu laan la enseignant wala professeur nga doo ko accepté mais xaaral ba am loolu pour loolu pour ñu toll ni étudiant nga bon il l'a mal pris wax na lu ko daay man France man ko France laa jàngee dama jàngee université Gaston Berger mais kan moo fa jàngeewul man université Gaston Berger laa jàngee la première te à l'époque pour dugg Sanaar euh, <laughs> il faut bien voir hein ñan ñoo fa nekkoon les meilleurs du Sénégal ñoo newoon Sanaar Sanaar un laa nekk man formé par de très grands universitaires donc Babacar Kanté Serigne Diop Isaac Yankoba Ndiaye Nguyen Chantam Kader booy Samba Traoré ñoo ma jàngal Sénégal ba ma am maîtrise dem université Toulouse def fa DSS en administration locale jàll DEA nekk troisième de ma promotion. mais professeur non non non déglu ma rek parce que dafa am lu may tontu foofu ba pare jàngale fa 10 ans j'ai enseigné à l'université de Toulouse pendant 10 ans doog a ñëw Sénégal ñu recruté ma université de Thiès alors que ailleurs je n'ai déposé aucune demande dans aucune autre université man déposé ma benn demande ni leen jël leen ma ma jàngale foofu ñu rejeté sama demande parce qu'il l'a dit ce qui n'est pas vrai man j'ai été recruté à l'université de Thiès sur la base d'une sollicitation ma joxe dossier ñu validé ko. mais est-ce que ce débat n'est pas regrettable entre entre. c'est très regrettable parce que tout simplement en un moment donné il fallait redresser les choses de l'endroit à l'envers de l'envers à l'endroit parce que seen corps daf ci am les journalistes combien de personnes ñoo fi proclamé journaliste du journaliste demal dans le milieu de l'hôpital des gens qui sont des balayeurs se réclament aujourd'hui infirmiers il faut que les Sénégalais soient sérieux usurpation de fonction yi ak de titre la war a baax li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw. sama benn baay nee na ma li ma neex mooy sama papa sama papa uude la dàll moo ko dàqoon a defar Sénégal te naa kooku c' était une des plus grandes autorités de ce pays mais il était fier d' appartenir à une famille boo xam ne papaam uude la lan la métier la mais di woote loo nekkul baaxul.